asalaamaaleykum mbokk yi ñu suivre saa su nekk seen site internet bpactu.com ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal indiwaatal leen seen yeneen i xibaaru Actunet ñu ubbee suñu xibaar tey ci 750 munitions de balle yi nga xamante ni sàccoon nañ ko fexe fële na la ci Pekes tey nag colonel Aziz moo njëkkati ay kàddoom di dalal xelu askan bi di leen wax ni loolu nag nekkul arme yi nga xamante ni moom la ñu dénkoon armée Sénégal armée Sénégal li ñu leen dénkoon mu ngi en sécurité. ñuy wéyal suñuy xibaax ci wàllum sport Mbaye Diagne mi nga xamante ni raté woon na penalty boobu tey Lamine jógul ci moom coach bi mere woon na ko torop sax ba tax na ñu koy laaj ba xam Mbaye Diagne mën na desaat fële na la ci Bruges am déet moom nag mi ngi yëgle ni Mbaye Diagne pour mu desaat ci Bruges ci moom rek la dépendre jour boobu sax bañ nekkee ci vestiaire yi yeneen joueurs yi ñoo ngi doon jàmmaarloo ak moom mais affaire bi jot a sori que moom xam na ni moom moo def erreur après mu jéggalu ñuy wéyal suñuy xibaar fële na lee ci Turquie sénégalais yi fa nekk xëy di fësal seen nakar ak seen tiis jëmale ko ci état bu Sénégal ak état bu Turquie ñoom nee nañu ci réew mi la ñu bokk mais gëstu wuñ leen benn yoon ci jafe-jafe yi nga xamante ne ñoom ñoo ngi koy dund foofu jóguñu ci di leen laaj xaalis bu takk saa su nekk ñu koy joxe toog di xaar ay kayit yoo xamante ni mënuñu fexe ba jot ko benn yoon ñenn ci ñoom ëppal nañ fa fukki at ñeneen ñeneen ci ñoom xamatuñu sax ñaata at lañ fa def toog di xaar ay kayit yoo xamante ni boobu ba tey mënuñu koo jot loolu sax jafe-jafe yi nga xamante ne ñoo ngi koy dund bu ñu feebaree pour mën a faj seen bopp ak yan jafe yi nga xamante ne ñoo ngi koy dund ci seen wàllum liggéey des fois ñu jël leen daal di leen di téye ay weer bu ñu génnaatee seen liggéey yàqul léegi naka taxaw nañu temme pour jàmmaarloog ñoom ñu jox leen seen ay këyit parce que ñoom bépp règle boo xamante ni euh, tegaloon nañ leen ko pour ñu mën leen a jox seen këyit rek euh, def nañ ko ñuy alerter état bu Sénégal mu gestu leen euh, ci loolu noonu wala jafe-jafe yi di gën a yokk ñu jeexale suñu baax ci Ahmed Khalifa Niass boobu ba tey ñu ngi koy jut baaraam ci lan takk fase takk fase moom naka mi ngi tontu détracteur mi di leen yëgal ni di takk di fase moom moo gën nga dëkk ci di ñaaloo te takk fase sax du problème du lu garaaw xëy na nag sëy bu ko yàlla tuddee bu demee ba yem fa tàqalikoo moo gën te muy yëgle waat ni takk moo gën nga nekk ci njaaloo wala nga nekk ci loo xamante ni neexul yàlla te moom sax mi ngi yëgle bu baax que ni ñeenti jabar dong la am weesuwu ko mbokk yi fi la ñu yem ak yéen seen xibaaru Actu Net di leen jox dig daje ba suba incha allah. ay appartement de classe appartement meublé yu mucc ay fële ca jàmmalay virage près de la plage wedeen prolongé jàkkaarloo ak géej gi wuy loolu yow séjour bi minimum ba trois jours dong la am nañ tam ay salon ak ay balcon privé ay coin à manger deux chambres à coucher climatisées plus de salle de bain intérieure extérieure télévision écran plat plus de cent chaînes ay cuisine équipée yu mucc ayib sax connexion yu fi gratuit possibilité de restauration bu am jom téléphone 77 864 09 50 77 864 09 50